AIS loolu maam Cheikh Mbacke ñu ngi koy bàyyiloo xel ndax taxawaayu Aboubacry bi Seck booba radiyallahu taala bu fekkee dafa am kuy saaga mag ñi di saaga sëriñ si fi nekkoon te ñooñee yonent bi sallallahu alayhi wasallam di seen royuwaay Aboubacry ni Siddiq di seen mag ci yoon yoonu royuwaay wa yoon waa ngi nii kat ñoom buñ fi nekkoon la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon képp la ñuy doxal muy lan ba mu fayee koo ci yoonu ñetteel wa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dafa fas xar kanam ba alayhi salaatu wasalaam Aboubacar laaj ko nag waa yow day biñ ma saagaa yoon wu njëkk da ngaa muuñ ñaa yaa ñu saaga ma ñaareelu yoon da ngaa muuñ waaye biñ ma saagaa yoonu ñetteel ma fayu da ngaa mer mu ne ko waaw li tax ma mer mooy biñ la saagaa yoon wu njëkk nga muñ suñ borom subhanahu wa taala dafa yebal am malaayika mu lay toxalal jëfam ju baax ji yow di la ko bindal say rëcc-rëcc yi ñu ko bindal waa ci kon yebalal nañ la ay malaaka yow yu lay yu lay yu lay dellool yu lay dépendre waaye loolu lay soxla mu ne ko nag bi nga fayoo ci yoonu ñetteel wi malaaka yi dañoo daal di laxasu dem am la gannaaw te dama bëggoon ñu continuer rek di la defal liggéey boobu nii saafaraa ko nii moo gën fuuf manifester yëkkati ay xol ay mbooloo jóg dal ci yeneen i mbooloo seytaan bi ab la bëgg te it nag wax dëgg yàlla du xikma du sagesse benn waay nee nga muy saaga mag ñi nga ne kon nag ci kuréel sàngam la bokk nañ dal ca kuréel ba na fi kuréel bi jógee bu doon loolu benn kuréel ci kuréel yi fi nekk du fi des ñaata yoon lañ dégg kuy askanoo ci muridiye di saaga tijaaniye bëri na ñaata yoon lañ dégg kuy askanoo ci tijaaniye di saaga muridiye bu fekkoon ne dañ naan waajakat ab murid la nee na saaga na tijaaniye na tijaaniye ñu dal ci kawam konoon réew mi tàkk na bu yàgg nañuy gëmee nag ne kookee mbubboo muridiye di saaga tijaaniye du murid man loolu laa wax dama naan du murid ndax ab murid du saaga murid du saaga Cheikh Ahmad Bamba mam ne mooy kilifaam daf ne walxaasilu suufiyu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil nee na suufi yu dëgg bu fekkee ne am na mooy koo xam ne borom xam-xam lay fóore lay doon day jàng bu nekk fóore fóore joo xam ne it lam jàng lay jëfee te du jeng mukk yoon wam wam wam jaar muy lan yoon wi ko xam-xam teg kooku jàngale na saagawante déedéet jàngale wu ko la ma bëgg a wax ci woy woolu li dëppoog thème bi mooy fa muy waxee ne kal ardi yurma fawqaha kullu qabih wala turi min batniha illa malih mu ne suufi yu day mel ni suuf loo am ci lu bon sànnil ci suuf gis nga suñ mbalit yi suñu duus yi sax buñ ko ŋaccee duus yi sax foo ko jëmee ca suuf bi maanaam loo am ci lu lu bon looy looy sànni looy tuur ci suuf nga koy tuur te yow loo am ci lu baax suufa la ko jox maanaam li ngay lekk ak li ngay naan ak li ngay sol ak li li ngay kerloo di ci noppaloo lépp suñ borom mu mu ngi ko jaarale ci suuf suuf jox la ko yow nag lu bon loo am sànni ci moom. Cheikh Ahmadou Bamba rahimahullah tabaaraka taala nii la wax ne ab taalibam ni la war a mel suuf yi loo am lu bon ci waxal ci moom sànnil ci moom waaye moom nee na lu baax la mu am rek la lay won loolu mooy li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yore woon sahaaba yi radiyallahu anhum ajmaïn mu nga idfa billati hiya ahsan fa ida allazi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim alquran nga danaan la yow waxuma la lu baax waaye seetal la gën a baax nga di ko defal kan ci la noonoo bay def ci yow lu bon baa mu koy wax ci yow nee na boo ko bëggee saafara yoon wi loolu la bul toppanteeg moom nay def lu bon yow ngay def la gën a baax ci moom waay waay ayes aye baa nga jël leen bu fekkee kooku da leen di saaga di saaga seeni kilifa toppanteeg moom saaga wanteeg moom xulóog moom xeex ak moom du yoon wa idfa billati hiya ahsan mooy yoon wa te it kat jàpp naa ne buñ bëggoon a seet kii saaga ci réew mi ba ne diw mii la dana jafe de diw mii moo saaga benn sëriñ ci sëriñ réew mi déedéet man ma gëw ma ne danañ ko gis fii ci ci ci ñiy woote woo ahlu sunna wal jamaa ndax kat man lu ma dul def dama naan sama mbokkum jullit du ko def kon buñ ko askanee xarakatul falaa damay taxaw ne ah ba ba may déggee ne xarakatul falaa def na ko buñ ko askanee kenn ca mouvement xaraka dama naan ah ba ba may gisee firnde ja buñ ko askanee kenn ci muride yi noonu dama naan ah ba ba ma koy gisee te buñ ko demee ba seet ko muy dëgg dama naan ah dafa bokkagul ci muride yi de dafa bokkagul ci falaa de waaye mbooloo yii day ku ci bokk te dëggu ca doo saaga doo saaga sa morom waxuma laak nag sa kilifa sa kilifa ak kilifa defee liggéeyub diine boobu yenentu yu bëri yooyu di ko jàllawlante ci seen biir kenn ku ci nekk am lu mu ko sasoon lu tolloog jamonom tolloog man-manam waaw bu defee loola dem keneen ñëw ñu yónniwaat ko tekkiwul ne ku ñaareel kooku ñu yónni dafa andi eh, luy dajji la ko njëkk ka andi woon déedéet ñoom ñëpp lislaam lañu andi mu ngi tolloog kenn ku ci nekk nag ba mu wootee ci jamonoom def la tolloog man-manam nga dundam jeex doomu aadama boo gis dundam ci yaramam muy dund doomu aadama ga dafa am tàmbali am yem am yem waay fam yem nag bu agsee day borom day daal di dem lam doon liggéeyal nag muy pas-pas ba ak ngëm-ngëmam da ko fay bàyyi pas-pas boobu ak ngëm nga ñay ñëw gannaawam ci njab ci njabootam dana ci am ñoo xam ne dañuy wéy ca pas-pas ba ak ngëm nga duñ ca soppi dara gëm ko dëggal ko wéral ko waaye dana am ñeneen ñoo xam ne moom bu ñu ñëwee dañuy soppi pas-pas ba loolaa waral ñuy yónni di yónnee waat kon jëmm ji en tant que doomu aadama day faatu dem waaye pas-pas bi muy wooteel moom dafay des kon noonu la ñu toppalantee toppalante ba ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee fekk na ñi ko jiitu ci ay anbiyaa ak i rusul salawatullahi wa salaamu alayhim ajmain seen liggéey ñu sopp ci lu bëri yàq ci lu bëri ñaay ci lu bëri mu ñëw fas ko yéene dekkalaat dundalaat ko di ca woote woote boo xam ne ka ko doon gindi mooy borom bi tabaraka wa taala woote boobu nag moom jëmmam dem na waaye daf fiy des woote boobu it dañuy wax ne moom njëkkeewu ko déedéet téeméeri junni yonentu ak ñaar fukki junni yonentu ak ñeenti junni yonentu jiitu nañ ko fi daan ca woote bi mu ñëwee it woote wut woote boo xam ne dafa waroog seen woote ñoom ñu bëri ñooñu déedéet liggéey buñ defaroon buñ defoon la ñoom ba dem ay njaboot ñëw fi soppi ko yàq ko suñ borom nag fas yéene maanaam am parce que am am dogu ne ci kii laay mottulee nag yonent yi salawatullahi wa salaamu alayhim ajmain loolaa tax gannaawam beneen yonent dootu ñëw waaye nag borom xam-xam yi ñoo fiy des. taxaw taxawaayu ay anbiya ci saa yu jamono demee ba soppi soppiku soppiku soppiku am borom xam-xam yooyu ñëwaat di delloowaat mbir ya ca cosaan loolu moo waral daaw bii nga xam ne tey ci lañ nekk delloo googu nag ñu koy delloo ci cosaan moo nekkoon liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee da doon woote di def jéego par jéego suñ borom nag moo ko doon wax ne ko defal jéego bii teg ci bii laaya yi di ñëw di ko wommat di ko gunge su neexoon suñ borom day xëy xëy rek wàccee kaamil ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax fekkoon na kaamil ba mat na fa moom ma nga fa woon waaye bu ko wàccee woon noonu ci moom ne ko jëfee ko tey tey tey tey dana ko togg loo xam ne génn na man-manam dana ko togg it loo xam ne génn na man-manam ña muy woo loolaa waral mu ko doon wàccee ndànk-ndànk ne wa qur'anan faraqnaahu li taqra'ahu ala nnaasi ala wa nazzalnaahu tanzila muy téere boo xam ne suñ borom nee na maa ko from fànce teqale maana ya leeral leen mënoon koo wàccee ci mbëmbëstan defuma ko ndax dama bëgg nga di ko jàng ci nit ñi ci anam goo xam ne day mën a sax day dal mën a sax loola nag dafay laaj boo indee benn mbir ba nit ñi xam ko dund ko nga jàll ak ñoom ci luy dëgëral loola ko defee pas-pas ba di gën di dëgër pas-pas ba di gën di dëgër bi maanaam fondement ba di gën di dëgër ba ba muy àttanee bâtiment ba ak terrasse ba loolaa waral nga gis ci njëlbeenu lislaam yu bëri saxaaba yi nekkoon ca te diine yu njëkk yi sax kat dañ koo xaraamaloon diine yi fi lislaam yi yi fi yonent bi doon woote lislaam ya ko fi jiitu woon te muy benn lislaam bi yonent ya ko doon wootee dañu ko wax dafa xaraamoon ci seen diine ku mel ni ginaanum sàngara dafa xaraamoon ci diine ñooña njaalo dafa xaraamoon ci diine ñooña lekk riba dafa xaraamoon ci diine yonent yooya salaatullahi wa salaamu alayhim ajmain kon noona mu xaraamee woon ca diina yooya na lay xaraamaatee ci suñ diina ji waaye na gis nga xaraamal nga dafa def ay étape xëyu la xëy ne nañ bàyyi sàngara tey bu ko defoon di sotti di sàngara xaraamoon na ci diinu njëkk yi xëyuta xëyutam ne tey tey tey na riba dakk te riba dafa xaraamoon ca diina njëkk yi comme ni ngeen ko jàngee ci suratu nisa suñ borom subhanahu wa taala dafay wax ne wa axdihimu riba wa qadnuhu anhu ñoom yahud yi ña ngay jëfandikoo riba te ndaxam dey dañ leen koo tere woon ca suratu ruum lu mu fa wax wa ma aataytum min riban li yarbu fi amwali nnaasi fala yarbu inda allah wa ma aataytum min zakatin turiduna wajha allah fa ulaika humul mudifun kon gis nga ne foofa ca jamonoy màkka la ne riba junj nañ ko foofa ne lu ngeen ci tabax it day màbb waaye taxagul ñu xaraamal ko ñu demaat ba jëmmi jamono mu indi laay ba léegi sóor ni sànne waax si himu riba waxat lu andu ndax am dañ koo tere woon yahud ya de waaye ba tey jullit ñaa ngi continuer di ko jëfandikoo rek ñu toppoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu demaat ab diir laaya nag door a ñëw ne laa taakulu riba adaafan mudaafatan wattaqullah laallakum tuflihun dellu waxaat ca suratul baqara ne alladina yakuluna riba laa yaqumuna illa kama yaqumu alladi yataxabatuhu alcheytaanu min almas balaa yooyu jeex dem na sax ba naan fa in lam tafaalu faadanu bi xarbin min allahi wa rasulih wa in tubtum fa lakum ruusu amwalikum laa tadlimuuna wala tudlamuun bu ko defee kon loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam it fekkoon na ci biir Makka ay ay xërëm xërëm yooyu dafa xaraamoon ndax am teel naa wane ne xërëm yii ngeen di jaamu yelloowuñu njaamu suñ borom képp a yeew ñu di ko jaamu doon wax sax ne afara aytumul laata alquran di ko wax uzza wa manaata thalithatu l-ukhra alakumu dhakaru wa lahu l-untha tilka idan qismatun diisa waaye taxutoon nag ñu ne ko duggal ci kaaba gi nga màbbu xërëm yu bëri yooyu fi nekk tey tey na fi jóg ndax buñ ko santoon kero gi mënu ko nga ndax booba diina ji dafa amoon fu mu toll ci néew doole laaj xamle ko di ko dugal ndànk-ndànk ci xeli doomu aadama yi di ko def ay pas-pas ca xol ya di ko def ay jikko ca bakkan ya ñu koy dund ndànk-ndànk ci cër ya ba mbooloo mi ko gëm am fuñ toll bu boobaa nag buñ ne tey dañ fiy jëlee xërëm yi facilement daf fay jóg moo tax nga gis fa la bàyyi xërëm yi gàddaay dem dem Madina nekk fa ab diir di woote ba fatu Makka ñëw ci gàttal mu dellu siwaat keroog ba mu ñëwee tàgguwul kenn dafa ñëw rek daani xërëm bi màbbu leen benn par benn keroog dafa jot tënk googu nag ñu tënk doxub diina ci suñu baay aadama alayhi salaatu wassalaam ba ci tàmbali bu wooteem yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom itam mu commencé bu wooteem di dem ba fatu Makka ñëw mu sottal lu bëri commencé nag di dindi ya nga xam ne dafa jot na ñu dindi ko muy riba nag la nekk keroog na fa jóg daal di woo bàyyam abbas ne ko riba moom bii ngeen doon jëfandikoo daf fiy jóg keroog la fa jóg kon noonu ne la lislaam tàmbalee woon ci néew doole ak tumuranke ña ko xamutoon ñu di leen ko xamal ndànk-ndànk suñ borom subhanahu wa taala du juum daawa ñi koy defaat gannaaw yonentu bi alayhi salaatu wasalaam ñëpp moom la ñuy roy ñun ñi ñëpp mooy sunu reyukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana royuwaay bu rafet la moo ñu gën sut ñu fuuf ci ragal yàlla ak ci xam yàlla subhanahu wa taala waaw lu tax nag moom mu ñëw ci jamono boo xam ne diina tumuranke na suñ borom ne ko kon nag tàmbaleen nii del defee nii del defee nii ba ba diina di àggee fële man lam wa lam man ko defee la nga bëgg a dindi ko dindi moom it laata muy dem nee nañu kat fii ma tàmbalee woon da ngeen fi mos a àggaat yéen xeet bi daañ fa mos a àggaat muy tumuranke diina fi ne boo xoolee adduna bi diina ci alquran ak sunna da ngay gis ne tumurankeem ñëwaat na comme nam ñëwalee woon waa Màkka ya doon topp seen baay Ibrahima alayhi salaatu wassalaam ñoom Abu Jahlin ñooñu ngay gis kat dañ nekk ci diine Ibrahima lañ nekkoon ak ñoom Abu Sufyaan ak ñoom Abu Lahab ak waa Màkka ya waaye dem nañ ba diine Ibrahima ja tumuranke fa lool alquran mii nag ak sunna di diine ji ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam andil bàyyi ñu ko fi fi mu ne boo ko xoolee ci pas-pas yi xool ko ci jikko yi xool ko ci jëf yi xool ko ci jëflante yi xool ko ci marché bi xool ko ci lépp rek su ma yeboo ne ba ci colka yi lépp da ngay gis ne dafa tumuranke te kat ñi ko tamit tumurankeel dëgg dëgg dëgg mooy ñi ko gëm ndax pas-pas dafa sàkk woon ci ñi ko ñi ko gëm ne kenn ku nekk ci yéen kenn ku nekk ci ñun na jox boppam pas-pasam diinaam diinaam naan ko nii la du nii ci lépp ci gàttal ci lépp waaye tey dem nañ ba nangu luñ loolu diina di tumuraankeel diina ci suñ bopp commencé ko di ko tumuraankeel ca nañ ko waroon a fase nañ ko waroon a dëggalee ci pas-pas ba nañ ko waroon a wóoloo nañ ko waroon a soppee dem nañ ba gën a sopp yeneen nañ ko waroon a jiitalee dem nañ ba jiital yeneen fa ne ko diine yow toppal fee rek nekkal ci gannaaw topp lii kon kay wax dëgg yàlla ñun ñoo tumuraankeel diina mu dem sax ba ji far sunuy melokaan nii lañ daan xàmmee jullit bu jigéen dem nañ ba léegi tumuraanke na muy colkaam gu fatt ga gu yaatu ga gu jot ga sëkk ak itam tal nga xam ne du porte yaramam du ne tàpp ciw yaramam colkaak jullit bu jigéen booba dem na ba tumuranke fi mu ne nii ci jullit ñu jigéen ñi te jullit ñu jigéen ñi ñoo ko tumurankel waaw ñoo xajoowut melokaani diina yooyu xajootuñ colkaay diina yooyu ba fara fa xëy xëy dàq ko ba léegi sax boo xoolee jigéen ñi góorgóorluwaat bëgg delloo si colka yooyu ak melokaani jullit bu jigéen ñoom ñoo mujj tumuranke ba colka yooyu sax léegi dañuy dem ba naan man ndax jotul ñu jëlee ko fi am na ñu dem bay xalaatee noonu ndax jotul ñu jëlee ko fi ñooñu gën a ñëw nag gën a yokk ban bi ak tooy maanaam ban ba ban ba ban boo ci dëggee day tarxiis waaye nu mu gën a tooyee nag boo ci dëggee sax boo amul saas ngiru dafa mel ni kon ñun ñu mujj ñii dañoo ñëw far gën a sotti ndox ci ban bi ba ñun sax ñooy taxaw naan melokaan bii kat dëgg la diine la waaye na fi jóg yow jullit bu góor bi noonu la mbir mi demee ci yow dem nañ ba sa colkaal diine lii sax boo koy sol nga xam ne du passé dojoor da ngay commencé di tumuraanke ci yow na ngay solo ndax dañ naan la ah nangam ak i nangam xanaa fa ngay jaar dafa taa ndox ak yu demee noonu ci gàttal noonu la tumuraankee ba ci suñ sikkiñ yi ñu bëri ñun ne xëy na nañ ko wat tumuraankeel fi diina moustache yi nga xam ne dañoo waxoon ne nañ koy wat ñu ne nañ ko sëqal ndax ñoom déggoo dañ ko doon sëqal bi ma naa tumuraankeel diina ci lépp rek su may boole kon diina tumuraanke waat na jamono bii nag mu tumuraanke waatee dafay laajaat ñu jàngataat tàmbali ba naka la woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee naka la doon doxee ci jindik suñ borom subhanahu wa taala naan ko nii la étape ya étape bu nekk mu naan ko nii la étape yooyu di ko xam daf ñuy jëriñ munuñ ko ñàkk xam ndax sunu daaw bi ci lay tegee loolu nag moo lay may soo ñëwaatee ci jamono bu tumu bi mu tumurankee nga xam nooy bëttee tumuranke ji te ba àgg fa nga jëm ci ndimbalul suñ borom subhanahu wa taala waxtaan bii li ko waral mooy yàgg naa di ko wax dama koy dama koy gën a feddaliwaat tey ci ne sunu woote bii am na lu ci rax loo xam ne benn dañ naan xanaa dafa wàcc manhaju rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala boog da koo réeree yonent bi alayhi salaatu wa salaam képp kuy def al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar moom ngay roy digle lu baax tere lu bon pàq la ñaari melokaan lañ ci diine ji moom la ñuy xàmmee askan bi moom la ñuy xàmmee xeet bi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billahi door a kon digle lu baax tere lu bon wareefu bépp jullit la ba mu nekkee nag wareef suñ borom da ko dafa am nu mu ko séddalee kenn ku ci nekk la tolloog moom ñu ne ko yow lii moo ciy saw sas bay ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy commencé di def daawa amoon na sens bu rëy boo xam ne ñun amaguñ ko muy lan ku dugg si ci diine ji rek day nangu ne mooy kilifa mooy njiitam mooy roy waayam moo ko moo ko war di naan ko defal mu def baal mu baax ak martaba boo mën a duggee ci diine ji nag ci am-xam xam-xamu àdduna ci jamono booba am-am ci jamono booba ak dayoo ca jamono booba comme xas nga dugg rek mooy sa kilifa te it alhamdulilahi rabbil alamina ñu amaat mu amaatoon beneen saa su lan du waxantu ñemewut a wax ci bànneex lu muy wax lu nekk suñ borom a ko koy wax loo wa maa yantiqu anil hawa loolu sens la bu rëy boo xam ne moom amoon na ko du waxantu ñemewut a waxal suñ borom lu mu waxut subhanahu wa taala ña ca gannaawam it ñemewuñ koo jiitu ca gannaawam rek tàmbali booba nag diina tàmbali woon ñun amaguñ ko Sénégal gi amaguñ ko genn kilifa goo xam ne moom la ñëpp nangul ne kii la mu jiitu moom it mu mucc ci bànneexu bakkan mucc gu toll ni ñemewut a waxal yàlla lu mu waxul subhaanahu wa taala ñemewut a waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu waxul léppam tegee ci wax yu chance boobu yal nañu ko yàlla may waaye amaguñ ko yal nañu ko suñ borom may may nag bu ko defee nag ñu ngi woo kilifa yi yëpp ci ne loolu mooy départu diine gépp yàgg nañ di ko wax ci suñuy xutba ak suñuy conférence ne ah taalibe yi day jéego nañ ab jéego ndax kenn ku nekk ñëw na ci sëriñ ne ko yow de doy nga ma ci sa ci sa ci sama wàllu diina léegi yow laa def ngay sama kilifa loolu jéego la boo xam ne taalibe yi dafa gum nañ ko jéego boobu nag bëri nañ njuumte yu ci nekk muy lan da ngay ñëw ne ko sëriñ bi yow laa doyloo ci sama mbirum diina te yow xamaguloo diina fu mu tàmbalee fu mu yem kon gis nga la nga wax sëriñ ba mën naa am du dëgg mën naa am da nga koy nax ndax yow diina ji nga ko wax ne ko ci nga koy roy buñ la laajoon diina fu mu tàmbalee ak fu mu yem danga naan diinaa ngi commencé ci julli woor asaka aj màkka fa la yem kon yow loolu ci ngay wutub sëriñ waaye bu ñu la waxoon ne la ah ndaxam de liggéey boo mën di activité booy booy mën di jànkuwanteel ci àdduna moo xam sa mbay la sa caaw la sa ñaw la comme tailleur bi sa xarala la métier xarala mu mën a doon sa njaay ma ca marché ba ba lépp rek ci gàttal ci xeeti xarala yi lii kat da nga cee war a déglu sab sëriñ danaan la lii bokkut ci diine ci kon gis nga taalube boobu fa taalube bee jaaye woon jaayante woon ak yonent bi alayhi salaam di ko déglu ci lépp taalube bi amagul ko moom itam ndax danaan ko yow danaa la doyloo ci wàllu nu ñuy tuddee xale beeg rob néew beeg yooyu waaye nag du ma la déglu ci sama àdduna nga gis ne kon lëndëm lëndëm a ngi foofu ci xolu kii wutub kalifa lëndëm lëndëm boobu yi sëriñ bi war ko koo leeralal te ba tey ji leeralu ko chance ba taalubee saxaaba ya amoon ñoom dañ leen a leeralal lii yëpp kuy dugg rek dañ ko koy leeralal comme ni ñu ko waxee ci sunu xutbaab démb bi fa ngay duggee fa lañ lay xamalee ne la lépp lu jëm ci wàllu dégg ndigal bàyyi tere yenentu ko moom sallallahu alayhi wa sallam nga nangu comme ni ñu ko waxee dem dépense publique yenentu ko moom sallallahu alayhi wa sallam nga nangu jeex na chance boobu amaguñ ko ci taalu bi chance su leeral mbir yi amaguñ ko ci sëriñ bi nag wax dëgg sëriñ soosu ñu toppit seen responsabilité ci waroon a wut genn kilifa jaayanteeg moom ba tey jii amaguñ chance boobu ndax amul genn kilifa gu ñëpp di jaayanteel kenn ku nekk kilifa gam xam sës ca moom la xam moom la jaayanteel kilifa ya nag ñu ngi leen di ñaanal suñ borom subhanahu wa taala yal na yàlla may leen ñoom itam waay waay ñu woote ndaje ci nu mu gën a gaawee ne nañ dajaloo kat seet genn kilifa teg ko ci sunu kanam jaayanteeg moom ñoom bu ñu finalisé woon loolu rek islam daal di am lam tàmbalee ndéem muy lan genn kilifa comme na ko yonent bi doonee woon sallallahu alayhi wa sallam àggaguñ foofu amaguñ loolu kon gis nga ne ñun tàmbalib lislaam amaguñ ko lislaam dafa tàmbalee woon ci am genn kilifa am kilifa di déglu kilifa di wéen digalal kilifa di bàyyi tere kilifa kilifa ga yor lépp di doxal lépp lum joxoñ ñu dox loolu mooy yuurub diina amaguñ ma léegi nag comme amaguñ ndax ku mel ni benn ali yu ndaw rek mën naa nekk yor yor yor jaasim di dog di wéyal déedéet amoo dayo bi amoo man-man bi te it nag joxaguñ la sañ-sañ bi yow loo man waaraate waaye yorobuloo al amru ak ad nahyu l'ordre ak interdiction amagoo ko amoo ko ndax ordre ka koy jox day fekk mbooloom jullit ma dajaloo comme na mbooloom saxaaba ya dajaloo woon ci gannaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko digleel ñu wéer teral ñu baax la yàlla ñu ko yàlla may foofu nag ñu toll dañuy wax ne nañu bàyyi xel bu baax la ma doon wax rek laay gën di fedd li nañu bàyyi xel bu baax ci ne fi mu ne seytaane liggéeyam bi gën a rëy bi gën a rëy nga xam ne bu ko réussir rek ñun jekku nañu mooy néew doole googu ñu toll ak teqalikoo googu ñu toll dëgg-dëgg booloo gu ñu kuy wax na wax li am booloo ama gut menn mbooloom diina ama gut genn kàddu diina ama gut kon teqalikoo mu ngi fi mbooloo mbooloo yooyu nag du lu lislaam saxal lislaam nanguwu ko ci sunu bakkan yi képp la desee buñ nanguloon lislaam na ko saxaaba ya nangulee woon wallahi ëllëg genn kilifa am kon ñàkk a nangu maanaam nangu gu des ci ñun nangu gu des ci ñun moo xañ lislaam kàddu ndax kenn ku nekk dafa bëgg kàddu bu boobaa nag lislaam dootu am kàddu waaye ñun ñëpp bu ñu geddoon kàddu gi def ko genn kàddu jébbal ko lislaam tere lu bon day yomb lool digle lu baax it day yomb lool ma ne nag fii ñu toll amaguñu saasu am menn mbooloo mu booloo mbooloo mbooloo yii fi ne saytaane foofu laa toll woon ne pexeb ñi gën a rëy mooy nu may def ba fénqal yi yii seen tasaaroo di gën di di gën di di gën di fis ñuy gën di tojantey bopp ñuy gën di rayante bu ngeen seetloo ci ay année ay l'an 2001 ba l'an 2002 ba l'an 2003 daan nañ fi wax fii benn benn benn vidéo boo xam ne sax dañ ko daan tasaare sunu kem kàttan muy lan le le vrai visage de de l'Algérie néew na ku ko seetaanul ci yéen ni l'armée algérienne génnee woon benn prisonnier bu ñu doon tuddee Jamal Zaytouni Jamal Zaytouni boobu luuti yu la woon góor jigéen la woon ñu tëjoon ko war a mu waroon a dund ci kaso ba dee autorités yi génnee ko gaaral ko benn projet benn programme ne ko bii boo ñu ko doxalalee ñu libéré la non seulement ñu libéré la waaye dañ nekk ci sa gannaaw dooleel la ci alal dooleel la ci lépp lu tolloog seen man mu nangu loola gis ngeen ni mu duggee woon ci biir fils gannaaw bu ñu ko dissoudre yàq ko tas ko ñu dem ci makki bi dafa dem fekki leen ci biir makki bi ak sikkiñam bu rëy loolu laa waxoon loolu laa daan mos di wax dafa am ku ma tontu ne lu tax ñuy wax sikkiñ bu rëy ma ne foofu saytaan tey fi lay jaar ndax xam na ne sikkiñ bu rëy ci sunna la bokk xam na ne gàttal tubéy ci sunna la bokk xam na ne sax weexal yére ci sunna la bokk kon kañu nar a alak day ñëw niroo niroolu ak ñun dafa am benn waay bu ma ci tontu ne est-ce que loolu nekkul de ñun dañuy dafa mel ni ci ni mu waxee boobu ñun dañuy dindi sunna boobu ma ne ah xam naa boo xamoon Aliou Ndao day boo ñëwee da nga ko fekk ak sikkiñam da nga ko fekk ak kikkalam damay wax ne foofu bokk na ci fi ñuy jaar joxe nañ rek misaalum Jamal Zeytouni at yu mujj yi it ba ci surtout at mii bu ngeen seetloo danaay faral di tudd Gladio yàggut ndax dama dañ ko daan wax yem rek ci le vrai visage de l'Algérie amaguñ woon dëgg dëgg dëgg dëgg source yi biñ demee nag ba am source Gladio gis ne ndeke depuis le monde musulman di tàkk ba fii ñu toog programme boobu moo ko yor day recruter ay mbooloo nee na ñun tudduñu ñooñu xàkka yi dañ ko doon tudd démb ak bërki démb bi ñu demee it ba am source Gladio ak ni mu nekkee ci roon OTAN OTAN moomu couvrir ko muy liggéey ci roon ordre am depuis boobu ba léegi xam naa dafa dégluwul suñuy conférence waaye ndaxam ñu ngi tudd mbooloo yooyu de ñu ngi koy wax nag ne ko wax dëgg yàlla tuumaal nañu ci ne ñun dañoo moomale mbir mi ñii askanoo ci sunna déedéet loolu Aliou Ndao bu ko defee ma ngay tuumaal boppam ndax ñun ci sunna la ñuy askanoo ci sunna la ñuy askanoo moo tax mbir yi di ci tey baax na lool baax na lool ñun nag dañuy nangu ne doomu aadama yépp ay juum ñun ñooy bopp njuumte la waaye nag bu nit juumee buum ñu yóbbee njuumte ñun moo tax ñu def waxtaan wu gàtt wii ci ne lañ waxoon bu njëkk rek buñ tontuloo wuñ kenn pulooloo wuñ kenn ndax loolu la noon yi bëgg ci ñun ñun duñu leen ko may duñu ubbi bunt boobu comme ñu ngi doon wax ne bu leen ubbi bunt boobu wax dëgg yàlla ñun waruñoo nekk ñuy ubbi bunt boobu vidéo boobu muy wax waxoon naa ca ne sens bi gën a rëy noon yi war ko mën ko am tey ci suñ biir mooy fénq la ñuy reyante ci turu fii ci Sénégal tariqa ak sunna tey laa ko gën a wax nag tey jii lañ gën a wax ne ker bu noon bi amee sens boobu mën nañoo yóbbee ay musiba lañ doon wax daaw ren ñëw na yaakaar naa semaine bii rek yeneen gis ay manifestation yoo xam ne ñu askanoo ci tasawuf ñu ngi koy manifesté wu di wane ne dafa am ñu leen di saaga ci réseaux sociaux yi ba sax am na ñoo xam ne bañ leen tegalee saaga ya naqari na leen ba dañoo jooy démb ci suñu waxtaanu TV Saloum wax naa ca ne sëñ Cheikh Mbacke moomu muy maam Cheikh Mbacke ak mbooloo mi ànd ak moom nañu bàyyi xel bu baax ñooñu di saaga ñan la kii saaga kan la kii saaga kan la nañ ko nañ nañ seet ñooñu ñan la kii saaga kan la ndax mu ngi ci réew mi wala nekkul ci réew mi. ak it su fekkente ne dem nañ ba ne diw sàngam mii mooy saaga méthode boobu ñu jël ne nañu manifesté wu yëkkati ay tension pour ay mbooloo jóg ne na fi mbooloo mi jóg loolu du méthode bi gën loolu saafarawul liñ bëgg a saafara déedéet day may noon bi encore la bëgg nañ fexe ba xam kii saaga kan la ñu am firnde yu leer ne kii moo wax lii waaw ñu yóbbu ko jébbal leen police police bi fi mu ne am na lu ñuy tuddee Interpol bu fekkee ne tur yu naxuma am na ñu lënkaloo à l'échelle mondiale kooku ak fu mu mën a nekk mën nañ ko jàpp ne ko yow yaa yaa wax wax ji yaa saaga kii bu fekkee saaga yi am na facilement loolu moom la engagé moom mii saaga xaw ma nag man kii saaga kan la bu fekkente ne mbir mi àgg na leen foofa nañ ko jaaree ci méthode boobu benn méthode la fexe ba jébbal koo ko yoon eh, bu yoon demee ba gis ne kii moo saaga sëriñ diw ak sëriñ diw ak sëriñ diw am ca yoon yu firnde yu leer te loolu la mën a taal fitna boobaa yoon moom moo xam ne muy jëflante kooka neem am na noonu mooy benn yoon ba beneen yoon ba nag mooy bi ñu lislaam jàngal te boobaay bi gën muy lan bu fekkee ne dafa am ku ñuy sa kuy saaga kilifa yi di leen saaga kilifa yi ñuy saaga kan ak kan la ñu ne dañuy saaga par exemple Maodo Malick Sy wala dañuy saaga si Ahmad Bamba wala dañuy saaga si Umarul Fuuti bu fekkee ne ñooñu la ñuy saaga man leer na ma ne ñooña buñ fi nekkoon am ku leen di saaga na Aboubacar réagiré woon la ñu réagiré na yonent bi sallallahu alayhi wasallam réagiré woon noonu la ñuy réagiré ndax ñooy seeni royuwaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaata yoon lañ ko saaga ci Makka ndax mos na càquloo mbaa mu xeex ca waxut ci biir Makka ba noppi am mbooloo jóg benn waay jóg ci digg mbooloo ma ne ah alihaza jamaatana tabban laka saairal yow beneen waay sax jóg ne in in haza illa ixtilaaq xam ngeen ixtilaaq li muy tekki keneen jóg ne bal huwa saaxirun kaddaab ci kilifa gu toll ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye moom dafa ànd ak dalam ndax xam na ne moom lim nekk muy dëgg kon suñ ne day sos moom xam na ne sosut suñ ne li muy wax nangam la moom xam na ne loolu ñu wax amut moo tax àggu ko fenn masu leen a gis ci alquran ba sunna foo xam ne dañ na ko yow da ngay nangam rek mu jóg ne ko yaa ma dàq nangam loolu mooy sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee man loolu laay digal sama bopp di ko fàttali sama bopp di ko fàttali samay mbokki jullit di ko fàttali jullit bi nga xam ne nee na dafa askanoo ci sunna di ko askan fàttali itam jullit bi nga xam ne nee na tasawuf mooy école bi muy jaar pour dal ci sunna maanaam pour dox ci sunna ndax it kat tasawuf bu fekkee ne imaamul junaydi miñ ko askanee la daan na wax ne tariqatuna hazihi mabniyatun ala alkitaabi wa sunna suñu lii ñuy woote muy tasawuf bii alquran ak sunna dong la man lam yaxfaz alqurana wa lam yaxfaz sunna fa laysa minna kon tasawuf du lu bees tasawuf du mbir mu ñëw wuuteeg alquran ak sunna tasawuf ña ko doon woote dañ doon wax ne alquran mii la ak sunna mii ku mënta respecté alquran mënoo respecté sunna bokkoo ci ñun loolu ay tasawuf comme ñoom noonu lañ définir tasawuf waay waay nañ leen ko nangul nañ leen ko nangul man dama leen koy nangul man Aliou Ndao ak fierté nag encouragé leen ne it nag ne leen feeg tasawuf mooy loolu imaamul Junayd di wax mooy leen ci kat ndax alquran ak sunna dong nga fi ne alquran ak sunna dong nga fi ne bu ko defee kon su boobaa fajin wi gën ma di ko fàttali bu baax ayees ne fajin wi gën ci ni ñuy fajee kooku ñu ne mu ngi saaga sëriñ si fajin wi gën ca wañ koy fajee mooy bañ a saaga wante ko benn ñaareel ba ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala yàlla defar aw làmmiñam ba dootu saaga ndax làmmiñ suñ borom bindut ko ngir saaga saaga duñ ci bind lu dul bàkkaar te fa ngay saaga mënoon nga faa wax wax joo xam ne waxi topp yàlla la subhanallah alhamdulillah allahu akbar ñu bind la tiyaaba kon kuy jëfandikoo làmmiñam ci loo xam ne da koy jural bàkkaar te mënoon koo jural tiyaaba kooku dañ ko war a yërëm ñaanal ko suñ borom subhanahu wa taala mu defaral ko aw làmmiñam defaral ñun ñëpp suñu làmmiñ dañuy wax loo xam ne dañu cee bindal tiyaaba te duñu bindal bàkkaar ndax loolu moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon keroog ci taxawaayam ak Abu Bakr Siddiq ñu ngi wax démb ne bis Abu Bakr benn waay ñëw na wax ko wax ju bon ndax suñ sëriñ si am na ci ku toll ni Abu Bakr déedéet amu ci ku seen pëndub Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ñu koy saaga ci kanam kan ci kanam rasulullah sallallahu alayhi wasallam waa ji saaga ko Aboubacar tontu wut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muuñ njàngale mënta passé lii nee ñu waa ji saagawaat ko Aboubacar radiyallahu anhu tontu wut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muuñaat waa ji saagawaat ko yoonu ñetteel Aboubacar nag door a tontu delloo ko saaga waat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mer ay yes loolu maam Cheikh Mbacke ñu ngi koy bàyyiloo xel ndax taxawaayu Abu Bakr di sax booba radiyallahu taala bu fekkee dafa am kuy saaga mag ñi di saaga sëriñ si fi nekkoon te ñooñee yonent bi sallallahu alayhi wasallam di seen roywaay Abu Bakr ni Siddiq di seen mag ci ci yoon yoonu roywaay wa yoon waa ngi nii kat ñoom buñ fi nekkoon la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon képp la ñuy doxal muy lan ba mu fayee koo ci yoonu ñetteel wa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dafa fas xar kanam ba alayhi salaatu wasalaam Aboubacar laaj ko nag waa yow day biñ ma saagaa yoon wu njëkk da ngaa muuñ ñaar yaa ñu saaga ma ñaareelu yoon da ngaa muuñ waaye biñ ma saagaa yoonu ñetteel ma fayu da ngaa mer mu ne ko waaw li tax ma mer mooy biñ la saagaa yoon wu njëkk nga muñ suñ borom subhanahu wa taala dafa yebal am malaayika mu lay toxalal jëfam ju baax ji yow di la ko bindal say rëcc rëcc yi ñu ko bindal waa ji kon yebalal nañ la ay malaaka yow yu lay yu lay yu lay dellool yu lay defante waa ji loolu lay soxla mu ne ko nag bi nga fayoo ci yoonu ñetteel wi malaaka yi dañoo daal di laxasu dem am la gannaaw te dama bëggoon ñu continuer rek di la defal liggéey boobu nii saafaraa ko nii moo gën fuuf manifester yëkkati ay xol ay mbooloo jóg dal ci yeneeni mbooloo seytaane ab la bëgg te it nag wax dëgg yàlla du xikma du sagesse benn waay nee nga muy saaga mag ñi nga ne kon nag ci kuréel sàngam la bokk nañ dal ca kuréel ba na fi kuréel bi jógee bu doon loolu benn kuréel ci kuréel yi fi nekk du fi des ñaata yoon lañ dégg kuy askanoo ci muridiye di saaga tijaaniye bëri na ñaata yoon lañ dégg kuy askanoo ci tijaaniye di saaga muridiye bu fekkoon ne dañ naan waajakat ab murid la nee na saaga na tijaaniye na tijaani ñu dal ci kawam konoon réew mi tàkk na bu yàgg nañuy gëmee nag ne kookee mbubboo muridiye di saaga tijaaniye du murid man loolu laa wax dama naan du murit ndax ab murit du saaga murit du saaga Cheikh Ahmad Bamba mam ne mooy kilifaam daf ne walxaasilu suufiyu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil nee na suufi yu dëgg bu fekkee ne am na mooy koo xam ne borom xam-xam lay fóore lay doon day jàng bu nekk fóore fóore joo xam ne it lam jàng lay jëfee te du jeng mukk yoon wam wam wam jaar muy lan yoon wi ko xam-xam teg kooku kooku kooku jàngale na saagawante déedéet jàngale wu ko la ma bëgg a wax ci woy woo li dëppoog thème bi mooy fa muy waxee ne kal ardi yurma fawqaha kullu qabih wala turi min batniha illa malih mu ne suufi yu day mel ni suuf loo am ci lu bon sànnil ci suuf gis nga suñ mbalit yi sunu duus yi sax buñ ko ŋaccee duus yi sax foo ko jëmee ca suuf bi maanaam loo am ci lu lu bon looy looy sànni looy tuur ci suuf nga koy tuur te yow loo am ci lu baax suufa la ko jox maanaam li ngay lekk ak li ngay naan ak li ngay sol ak li li ngay kerloo di ci noppaloo lépp suñ borom mu mu ngi ko jaarale ci suuf suuf jox la ko yow nag lu bon doo am sànni ci moom. Cheikh Ahmadou Bamba rahimahullah tabaaraka taala nii la wax ne ab taalibe ni la war a mel suuf yi loo am lu bon ci waxal ci moom sànnil ci moom waaye moom nee na lu baax la mu am rek la lay won loolu mooy li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yore woon sahaaba yi radiyallahu anhum ajmain mu nga idfa billati hiya ahsan fa ida allazi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim alquran nga danaan la yow waxuma la lu baax waaye seetal la gën a baax nga di ko defal kan ci la noonoo bay def ci yow lu bon baa mu koy wax ci yow nee na boo ko bëggee saafara yoon wi loolu la bul toppanteeg moom nay def lu bon yow ngay def la gën a baax ci moom waay waay AIS ay baa nga jël leen bu fekkee kooku da leen di saaga di saaga seeni kilifa toppanteeg moom saaga wanteeg moom xulóog moom xeex ak moom du yoon wa idfa billati hiya ahsan mooy yoon wa te it kat jàpp naa ne buñ bëggoon a seet kii saaga ci réew mi ba ne diw mii la dana jafe de diw mii moo saaga benn sëriñ ci sëriñ réew mi déedéet man ma gëw ma ne danañ ko gis fii ci ci ci ñiy woote woo ahlu sunna wal jamaa ndax kat man lu ma dul def dama naan sama mbokkum jullit du ko def kon buñ ko askanee xarakatul falaa damay taxaw ne ah ba ba may déggee ne xarakatul falaa def na ko buñ ko askanee kenn ca mouvement xarakat dama naan ah ba ba may gisee firnde ja buñ ko askanee kenn ci murid yi noonu dama naan ah ba ba ma koy gisee te buñ ko demee ba seet ko muy dëgg dama naan ah dafa bokkagul ci murid yi de dafa bokkagul ci falaa de waaye mbooloo yii day ku ci bokk te dëggu ca doo saaga doo saaga sa morom waxuma laak nag sa kilifa ak sa sa sa kilifa ak kilifa kon daal yoon wi ñuy saafara mbir yi saytaane torox alku du am bëgg-bëggam mooy idfa billati hi ahsan du yàgg dara rek fa iza allazi baynaka wa baynahu adaawa kala noonu woon ka annahu waliyun xamim waaye nag wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa du xadin adim lii lañ bëggoon a wax ne ñu ngi koy bàyyiloo xel sunu bopp lañ waxoon daaw la ñuy waxaat ren moom la ñuy waxaat tey jii gannaaw buñ gisee ñu génnee ñu jël sunu wax ne ñun ñu ngi ko moomale ahlu sunnati wal jamaa wax bi bi ma ko dégloo nee naa ah ku xam Aliou Ndaw de bu dégloo wax bi moom dana xam ne waxuñ Aliou Ndaw mii keneen la ñuy wax de ku xam Aliou Ndaw it dana xam ne ñun xàmmee wuñ jànj ak joor xàmmee wuñ digle lu baax xàmmee wuñ ca kilifaak diina gi ak kilifaak àdduna gi déedéet ku ñu xam-xam na ci ñun loolu digle lu baax li suñ bopp lañ koy njëkk sadd suñ noppee nag moomale ko ñëpp te gëm nañ ne digle lu baax tere lu bon nga def ko buur bi ak baadoolo bi ak sëriñ bi mooy indi jàmm cim réew buñ demee nag ba ne digal kilifa yi àdduna yi lu baax ak di leen tere lu bon mooy indi fitna kon de yonent yi yëpp taalkati fitna la ñu woon.
asalaamaaleykum.
waaleykum salaam. ñoom dañ ne yow da ngeen a saaga woon.
déedéet ñoom dañ ne wax bii ma waxoon ne am na ñuy gàttal sikkiñ di guddal kii te te mën naa am sañ ngay naan di sàng rek te man ñi may wax dama leen di dama ñeme ba tey di wax ne ñooñu dama leen di tudd mu ne tudd ma leen ma ne xam naa dafa dégluwul samay conférence ba ma xamee Jamal Zaytouni ak l'armée algérienne bi ko gemboon dama leen doon tudd ak France bañ demee nag ba xam ne ndeke mbir ma ëpp na foofa léegi gradio la dem na ba nekk ci niveau OTAN foofa la ñuy tudd léegi ñun foofa la ñuy dóor wax dëgg yàlla nag ku bokkut ci galaajo bu bëggee wax bu jël wax bi moomale ko boppam ah moom xam naa moo jortee noonu rek bu ko defee suñ bokk moom ñu ngi koy wax ne ko ñi mu bëggoon ñu tudd leen tudd nañ leen bu yàgg ñi jublu ci suñu wax bi tudd nañ leen démb tuddaat nañ leen tey ci waxtaan wii te duñ denc leen tudd nag te it gëm nañ ne digle lu baax ka ko gën a soxla mooy kilifa ak adduna gi. Firaw na ca la Moussa Moussa ci moom la tàmbalee woon ba ko suñ borom borom yebal daf ne ko demal directement ca pale ba isab ila firaw na lu mu ca teg innahu taxa nam ko war a waxee ak moom it faqula lahu xawlan layyinan ja da koo firiwaat ci weneen saar ne ko faqul hal laka ila an tazakka xanaa bëggoo ma teg la ci yoon woo xam da nga koy topp di dem ba jub wa ahdiyaka xanaa bëggoo ma gindi la ila rabbika fataxsha a digal kilifa lu baax tere ko lu bon mu ngi bokk ci jihaad yi gën a mag nay kilifaak diina nay kilifaak àdduna ñun xàmmewuñ ñaar yooyu ku xàmmee kilifaak àdduna nag yow yaa ko xàmmee waaye lislaam moom xàmmewul ñaar yi genn kilifteef dong la lislaam xam mooy goog àdduna mooy goog diina ngeen baal goog diina réew mu mel ni Sénégal gi nag quatre-vingt-quinze pour cent di ay jullit kilifaak diina képp lañ waroon a xam kilifaak aada gii nuy wax daf fi waroon a far kilifaak àdduna gii nuy wax daf fi waroon a far bu kilifaak diina taxawoon taxawaayam dama ne genn kilifteef yi nekk mooy gii teg mbir mi ci kaw tariqatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jéggulu ñëpp nag guddal nañ sax bëggee wuñ ko woon nii waaye ñu ngi waatal mbokk mii doon ñu tontu ne ëmbaluñ ko dara te itam ñaanuñ yàlla mukk wax ci ahlu sunnati wal jamaa lu dul li ñuy wax ci suñ bopp waaye nag fa suñ yéene mukk teggi suñ tànk ci al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar te xàmmeewuñ ci sëriñ bi ak kilifa adduna gi nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jazakumullahu xeyran